moo ñëw ci sëñ Fallou ne ko man de bëgg oto lool te bañ ko lool ndax ki koy dawal sëñ Fallou ne ko danaa la boole koo xam ne doo am dara ci moom lu la naqari dana lay dawalal oto bi dana lay dawalal lettre tubaab boo am dana la koy jàngal sëñ lu wooma du Abdulaat toog ci suuf sëñ lu toog ci pliant bi ma ñëw mu na ma xam nga kii ma ne ko déedéet mu na ma Abdulaat la tudd sama rakk la ne sëñ Abdulaat xam nga kii mu ne ko déedéet mu ne mu joxoñ penku ne ko Alboury Alboury la tudd waaw ñoo moom Jolof mm. ñoo moom Jolof waaye man Alboury laay wax mm. xoolal dama leen di boole def ko ni sa bopp ba mu def nga def bi mu nu boolee cinquante trois ñu ànd tukki tukki réew mépp dañ ko daan wër bu bu buñ béyee ba waxtu traite jot ba tukki jot waaye musul génn Sénégal dim daan ñëw Touba sax du bëri ndax tukki waaye Sénégal moom musu koo génn loolu daal benn yoon la génn tukki Sénégal muy yoonu Abidjan bi woo xam ne sëñ Fallu ko ci yebaloon boobu nag ku ñuy wax Dame Seck moo doon représentant murid yi ca Abidjan xuloo di d'Ivoire gépp booba booba nit ñi xamul ni sax di Côte d'Ivoire la murid yi tukki bu bari lool ba mu xuloo faraya nag ñëw wax ko xale yi ñëw wax ko sëñ Fallu na ko nun kët jubootunoo Dame Seck dunoo bëgg nga wutal nu keneen dañ fàllu na leen yéenay tànn ci seen biir ku ngeen bëgg ñu ne ko ñun Serigne Niass lan bëgg Serigne Niass mi ngi dëkk gaawaan nii ci Mbàkke woo Serigne Niass wax ko ko ne leen nag danaa fa yónnee ñu dindi daam sekk teg fa Serigne Niass dal woo ku ñuy wax Bamba Gueye taalibe mi ngi doon liggéey gouvernement général booba réew mi dafa am gouvernement du Sénégal ak gouvernement général yónni ko ca Bamba dem fa ba yàgg fa munu ca dara mu dellu si na sëñ Fallu mais mbir day mënuma koo lijjanti ndax daam moomoom fa nekk jaxasoo na ak tubaab yi ak gouvernement ba ba nga xam ne dindi ko fa du yomb sëñ Fallu ne ko danaa fa yóbbu yóddi koo xam ne kii dana ko dindi ci saayir mbaa mu dindi ko ci baat dal di woolu sëñ Blaat dal di ko koy wax ñu dem bi ñuy dem mbooloo mu bari la fi leen duggee express ba Bamako Bamako am nañ fa fukki fan koor la ñu woore ko fa bañ fa jógee dañoo dugg oto ñëw ñëw booba jolaas fanaan fa otoraay ba jógee ñëw jëlnu ñu dem Abidjan ci gàttal Abidjan weer lan fa am sëñ bi gis na gouverneur gis na directeur sûreté directeur bi sûreté tubaab la sax ban ko gisee daf ne man di sëñ Fallu xarit la maa nekkoon commandant cercle Louga mayoon na ma fas bu baax ñu ñu jox na oto ñu wër réew mépp weer ñu dindi ko teg fa sëriñ Ñas ñu ne nag nañ ñibbi bi nii ñibbi jaar fi ñu jaaroon ba ñëwaat ba Bamako sëñ bi jox bagaas yëpp mbooloo mi na leen dellu leen maak sëñ Mbay Ngom mii ak sëñ Aliou Ndiaye dañuy jaari Conakry ah sa ab seex moom sëñ Fallu bu mag ñu daal dugg oto ñëw kànkan ah, ñëw ñëw ñëw sigiri sigiri biñ ñëwee fekk bag ba wàcc biñ ñëwee sigli bag la danoo fekk bag ba wàcc ñu fanaan fa fanaan ba xamuñu fa kenn dant bi sono danoo lal rek suñuy sajaate eh, ci perong yi tëdd ba bët set perong bi ñu fanaan ndeke doomi sëñ baara ju jigéen mi ngi fi boroom këram procureur la ñoo nekk ci kaw min xëyee suba teel ñu door noo yëg defal nañ ndékki oto bi taxaw ñu jóg ñëw kankan kankan biñ fi ñëwee xiif lool ci xamuñu fa kenn am fun dali ban fa demee kooko euh, soxnaam rek lañ fa fekk te soxnaam euh, néew doole tëj bi nanu nan dem siyaare ji Cheikh Fanta Madi ndax wala rek sëñ Fallou la waaw ñu ànd man ak sëñ Mbaye Ngom ñu dem siyaare ko fekk ñu déedéet boobu dundut ba ñu wàññee ko ñoo ngi xiif lool yàlla dogal ñu daal di dox tuuti rek tane ak sëñ Moustapha Gaye soxna sëñ Moustapha Gaye soxna Maguette Gaye ñoo bokk ndey ak baay kàbbal la dëkk jóge woon yegg kenn xamatut fu mu nekk nekkoon CFA di wut jama ba mu yàgg mu dellu si kànkan taseeg noonu ba mu gisee taseeg noonu rek dafa waaru sëñ bi waaru mu ne sëñ bi kañ ngeen fi ñëw ñu ne ko léegi fu ngeen dal ñu wax ko ñu ànd moom ba fan dal mu dellu ba mu delloo dal di nuy indil añ boo xam ne maar deetaali ñu añ indi reer saxaar gin ñu war a dugg nag dem Conakry six heures du matin lay départ six si heures du matin ba nu duggee ci saxaar gi ba huit ci guddi lan ak si Conakry fekk nan mbooloo mu bari ju nu teeru jox baara jox ma portele ñu ñu dalli kër ku ñuy wax Sëriñ Jaañ chef da gare ba la woon taalibe Sëñ Gaawaan la waa Thiès la xaw boo fonctionnaire yi dañ leen di affecté la woyof yëpp fu leen neex ñu affecté ko këram lan dal boobu sëñ Abdoulaye ngi nii maa ngi nii ñii ay doomam lan kii tailleur la bu sant Lo moom lan fa fekkoon moo nu doon interprète bi wax ak euh, euh, nun euh, dafa déggoon làkki réew ma fu ñuy dem ñii doomi ñan lañ. doomi Ousmane Dia moomu. kenn ki mooy procureur Ousmane Diagne léegi. Hmm. Hmm? kii mooy procureur Ousmane Diagne. waaw. waaw ki ci des rakkam la moom itam ingénieur Eloas la. léegi nag ñu am fa fukki fan. Hmm. Conakry. ñu ne nan ñibbi nag. ñu ne luy dem ñu ne avion day dana gont tey sëñ bi ne man de du ma dugg avion waaw mu ne man dugg avion sëñ ne kon nag man naa leen jiitu ji ñu dal di ànd ak moom ba aéroport ba dugg avion bam dem ñu delsi ñu ne suba am na bato bu ñëw bu tudd Fogol mu ngi jógee Pointe Noire jëm Bordeaux day daar Dakar. loolu waaw léegi nag ñu dem defaroon na suñuy visite bato bi ñëw ñu dugg première classe bato première classe bato tubaab yoo ñu nu neexee li nu rafeti kenn mësu koo gis néeg bi nekk lekk gi ñu toog tuuti ab tubaab jaar ci buntu néeg bi yore waaye di yëngal ko suñu blaat nu ma loo loolu lan la ma ne ko day woote reer mu ne ma nan reeri biñ ñëwee ba ci bunt bi pour génn ma bëgg mu jiitu mu bomax ma ne ma jiitul yow mi fi xam ma fi dóor <laughs> ma jiitu ñu ngi bind fi nii reere capitaine baa ngi taxaw ci bunt bi ku ñu mu sàlli la nga dugg biñ ñëwee ba ci bunt bi mu xool fi ni reere ni mu yaatoo weex tag gisuñu fi benn nit ku ñuul Tuubaa bi kese na ca kaw la ilaha illallah yàlla bu ma lekkee néegam ma topp ci ba ma demee mun na ma demal reeri te boo demee lu la laaj lu may lekk nee leen ay doom rek ak li ma ay doom rek ak li bi ma ñëwee capitaine bi moom dégg na sëñ bi wax xamagun ma ñëw mu daal di may làkk na ma kees a tibla que mooy ma ne ko c'est le fils de Cheikh Ahmadou Bamba mu ne ma qu'est-ce qu'il a dit ma ne qu'il a mu ne ma lu mu bëgg noo wax ko ñu ko ko yot daal di ànd ak man ba ca néeg ba ne ma bouton bi boo ko bësee nit dana ñëw lu mu bëgg ñu jox ko ma ko ay fruits rek la bëgg ak limonade may reeri di añi di ndékki lal bi sëñ bi tëdd ak mi ngi tolloo ko palanteer am na lal ci suuf ma ciy tëdd mu jékki-jékki palanteeru lal ba mu ne ko weset la rek mu ne ko bët ubbi jàkkaarloog ndox mi ne ma luy mën a mbàkke mu ne ma kaay xool ma ñëw mu ne ma fii la sëñ Tuubaa sànne woon der bi ci géej gi ndox mi gii wet bëla kii wet weex loolu de maag moomu ko gis. billaahi waxtu. te boobu bato baa ngi daw. waaw ah, bato boo ubbee lépp ci néeg bi doo doo bu la neexee doo gis dara ba ubbee kii rek waaw mu ne ma fii la sëñ Touba sànni woon der bi ci géej. Hmm? dama ne. lal bi mu tëdd mu ngi toll beneen palanteer boo xam ne boo ne nii rek mu ubbeeku am na lal ci suuf ci laay tëdd mu jékki-jékki rek nu kulbet palanteer bi jàkkaarloog ndox mi mii géej gi ndox mi weex fii wet weex ci wet ba la mun ma lii ma na mbàkke mun am yi ma ñëw dama xoolal fii la sëñ Tuubaa sànne woon der bi ci géej loolu loolu mooy doon suñu yoonu géej ba bato bi ñëwee nag Dakar lañ wàcc daal di nun dugg oto ñëw Touba loolu moo doon yoon wi. ci biir réew mi. Hmm. Eh, waaw tukki yoon daan ànd mooy moom da doon def ne. daaru salaam buñ fob daara amoon moo doon daaru salaam ba moo ci gënoon a mag ak mbaraan fii ci wetu waaw mbaraan jeng dégg ak kàbb amoon na daara sax bay ci jàg gii ci kër bay abdoulaat ka abdoulaat ka waaw bay ci jàg daara moom ah bayti ja bayti ja danoo sant kaw bayti ja la dëkk ba tudd ah, ñu bëri ci dongo yi sax ci këru bay sëñ Abdoulaye Ka lan doon nekk daaram ja moom ay juróomeer juróom-benn rek yàggut waaye foofu moo doon daara yi yi gënoon na mag dan daan def nag bu traite bi taxawee ñu topp réew mi di tukki duggee biir mbaakol bu mbaakol jeex ñu dugg kajoor ba mu jeex danañ dem Ndakaaru danañ dem ba Tamba waaye taalibe dafa amoon ci taalibeem yi nag taalibeem yu mag yoo xam ne yi ñoom bu traite bi taxawee ñoom rekk bu ñëwee ci addiya ñoo mënoon a joxe addiya fukki junni boobu fukki junni jafe na ku ñuy wax sëñ Mor Seck ëntal guna ci kër sëñ Mor sekk daana ko joxe ku ñuy wax Bamba Souran ca Ndar daana ko def ku ñuy wax Abdou Karim Fall ca kebemeer ñooñu moom noonu ku ñuy wax Biram Jeng taset la nekkoon jigéen la di fa def commerce gannaaw bi mu taxu si eh, Thiès am fa restaurant ñooñu ñooy taalibe ñi nga xam ne woon yooyu jamono mën na noo joxe loolu ñi ci des danañ joxe ay fës joxe joxe dongo joxe yeneen waaw boobu noonu lañ daan tukki si wax bi ci na waaw. déedéet déedéet boobu fekk na mu yewi ma. Hmm, yow ban année la la ma yewi. may ma oto. Hmm. may ma kër. dugal ma ci gouvernement bi ñu affecté ma Ziguinchor. Hmm. ma jóge fa ñu affecté ma Gossas. moo jógee fa ñu affecté ma Linguère bi mu nekkee xalifa laa dellusiwaat fii Mbàkke nekk agriculture di dem nag waaw di dem nag te tool yi di yóbbu euh, yi agriculture so li tool yi ñu soxlati loolu yëpp ci agriculture mm-hmm. waaw. waaw ñoo ànd waaw. Mm-hmm. bi mu nekk fu mu mën nekk rek. Mm-hmm. waaw bi bi daana ma ci ay kiibaan. moo tax ñu ñëw ci yooyu ci ñooñu sax. waaw boo ñu mooy kan. li ma xam ci moom. Mm-hmm. ku dëgër fit la. ku bëgg alxuraan. ku bëgg ay xasaayit. Mm-hmm. ku tabe. ndax daane wax ne daanaa gis mu amee lenn rek nit ñëw fu mu jox ko toog. Mm-hmm. daana wax ne alal ju bëri. joo xam ne jii bari ci man bu ma at bañ ko attan ko bañ a jox nit jooju alal yàlla bu ma ko yàlla may kéemaan itam bari na yoo xam ne doon nañ ko ci dana koy def ma fekk ko am na benn bés ñu jógee Daaru Salaam ba Kibar ga war a ñëw tuubaa mu yem dimanche bi bésu élection ñun xamuñu woon sax bésu élection la mu ne ma dama bëgg ñu jaari Gosaas dama soxla Ibrahima Thion ñu jaar si Gosaas marché Ibrahima Thion day jaay guro ca marché ma ma taxaw ci buntu bi woo Ibrahima Thion wàccut mu wax moom ba noppi nan na ma nan dem ñuy génn Gosaas rek ay sar la ma arrêté nenu tey am na sa autorisation ma ko aw mukk de mu ne tey bisu élection la balaa kenn génn da am autorisation ma ne ko fun ñu koy ñaane boobu dañu door a am indépendance boobu wax agun préfecture mu ne kër commandant ñu ñëw kër commandant bi ma tourné commandant baa ngi toog ci perron bi ak adjoint bi ak ab garde ma ñëw ba tourné delluwaat kii dal di wàcc ñëw ku ñuy wax Lamine Lo booba mooy commandement bi sëñ bi wàccut de mi ngi toog rek man ne ko man de damaa ànd ak sëñ bi ñu jógee tool yi di jëm Touba ah, bëggoon autorisation Lamine jóg dugg ci bureau bi defal autorisation bi jox ma laajum ma kan la kat ma ñëw départ sëñ bi ne ma kooku mooy kan ma ne kooku de mooy commandement bi mu ne ma kooku de dana nekk gouverneur ñu ñuy dem ba histoire Senghor ak Mamadou taxaw mm-hmm. ja mm-hmm. ñu ne ñoom Lamine Lo ak commandant de cercle yi àndoon ak Mamadou Dia daal Senghor na leen ku ci tuubut daal dina la wàcc mm-hmm. fekk man yàlla dogal ma ñëw Gosaas sëñ bi yewee na ma boobu ma ñëw Gosaas Lamine loo xaritam nga xam ne mooy payeur bi sama najaay la Lamine loo di ñëw di waxtaan ak moom na ko man day du ma tu maa ngi ci saal bi toog di tëdd di leen dégg du ma tu fenn buy boo ñu wàcce ma ah, moo ma jóg toog na ko yow ngay nekk gouverneur. mu ne ma nga ne lan ma ne ko gouverneur ngay nekk nett li ko lii moom sama nijaay je tijaan la ñu toog ba yàgg ñu nommé Lamine Lo directeur ONCAD toogaat ay fan nommé ko gouverneur am na bu kéemaane nit boo xam ne ci Abdou Karim Fall la Abdou Karim Fall xam ngeen ko amat waaw amat Fall ma njéemé bàyyam kajoor yëpp moo fi ëppoon alal kajoor gépp dëkk bu nekk dafa am dafa amoon euh, kër entre temps tubaab bi di ko jox xaalis Abdou Karim nag nekk kër gi ca Kébémer teel a jébbalu ci sëñ bi lool teel a jébbalu ci sëñ bi lool nga xam ne moom bëri wutoon ay wax lu muy def daf koy def ak sëñ bi rek am at moo xam ne nag dañ faa ñëw mu ne sëñ bi day tubaab yi nee nan kër gi dañ koy nangu si bi bayam gaañoo ndax kër gi da koo tay la woon kon nag dañ koy nangu si sëñ bi na ko ba baax na ñu dem bàyyi noonu tubaab yi waxaatuñ dara ba ca déwén sa ñu ne sëñ ñu sëñ bi na war nañ dem kàbb tool ya kàbb dañ koo bëgg a koy jeqi ji te dama faa santaane liggéey bu ëllëgee lañ koy jeqi mbooloo mépp danañ fa daje bi ñuy ñëw nag ba ndànd diggante kàbb ak ndànd comme oto bi day fees dal lañ nit ci gannaaw maa ngi moom rek ci kanam mu ne bu ma wàccee rek bu ma wàccee rek ba ngay tourné di gaare rek demal Kébémer demal la yónni ci Abdou Karim boo demee na ko sëñ bi nee na dañuy déqalu tool yi suba mu dimbali ma ci añ bi fekk Abdou Karim na fam tubaab bi soññ nañ ko war a nangu si kër ci xamut fu mu gisee sëñ bi ndax sëñ bi day tukki ca téléphone boobu kiwut mu mu jaaxle lool ma départ bi ma Abdou Karim séenée daal dafa waaru ma ñëw gaare mu ne ma ana sëñ bi ma ne ko bi de ngi kàbb léegi lañ fi agsi dafa wàcc rek ma wàññeeku damaa yónni ci yow dañuy deqi tool ba suba nee na nga dimbale ko ci añ bi mu ne ma sëñ bi daal fu nekk wër naa ko xam mënuma ko léegi daal tubaab yi nee am sax ñaari fan ñu fab kër gi ma ne ah, mu ne waaw boo demee daal waxal ma sëñ bi loolu daal di may jox saako ceeb booba ceeb cent kilos la ak junni solal na essence booba booba essence yi bitig yi ñooy am poste essence nii rek ci bunti nga xam ne par juróomi litre la ñuy pompé solal ma essence ma ñëw wax loolu sëñ bi sëñ bi bindaat saafara jox ma dama dellu jox ko mu sëñ ko saafara soo si day bu ko fa Abdou tey ca la jóge lii nettali naa ko ay doomu ñu wax moom nag moom nag bu masaa saa ba jamono sonn ba sonn ba jamono jooju nekk jamono nga xam ne man eh, daf may métti daf may wax yow de da nga dib ceddo rek te booba ñëpp a ngi fi kat mag ko man balaa yàgg àddina bépp nekk ci sama loxo balaa yàgg àddina bépp nekk ci sox kon nag diggante bi danaa fi am ay norto jaar jaar boobu sëñ Fallu ngi fi sëñ Basiru ngi fi sëñ Ibrahima Mbàkke ngi fi sëñ Dul Abdoulaye ngi fi yow suñu Fallu dafa doon sa sëriñ boobu. waaw moo doon ma woon fenn kii moo doon sama sëriñu baay mu nekk jikko yi ma la ah. li ma roy ci moom. li ci moom. Hmm. ku dëgër fit ku bëgg alxuraan. Hmm. ku ku tabe.